ngir Kaani Wade Khalifa Sall bokk ci élection na léegi tey nga xam ne ñoo bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar bu Macky Sall jokkoo ak ñi nga xam ne ñooy waa Assemblée nationale bu leen saisir ñi nga xam ne ñooy député Benno yi mën nañoo lànk ba tëdd sa a voté nga xam ne mooy projet de loi bi daal di koy kapute ndax ñoom dañoo gis ne Macky Sall moom dem na fi ay yoon yoon ay élection te wul ak ki nga xam ne mooy Khalifa Sall ak Karim Wade lan moo tax mu bëgg a dem ba bàyyi réew mi bëgg ñoom ñu jàmmaarloo ak ñaar ñii nga xam ne ay candidat yu sérieux lañu ñenn ci député ñoo ko wax ñoo ko wax waa journal bi de Le Quotidien nee nañu sax maanaam a voté li nga xam ne mooy boobale projet de loi yéen li am ba de Sall li jëm ci yóbbu assemblée nationale bu ko député yi bennoo yi bañee voté maanaam bu mu leen bett yéen kaay gii di vox populi xëy di ñu xibaar naan ñu candidat bennoo bokk yaakaar ci élection présidentielle 2024 ñi nga xam ne ñooy waa APR nañu Macky Sall yaay yor bokk ci élection présidentielle 2024 yéen kaay gii di la turbine ci coalition bennoo bi nga xam ne moom la bennoo bokk yaakaar di samp maanaam implosion mooy ama tas tasar la benn bokk yaakaar di def yéen kay gi réew mi ko di jeex ñu xëy fekk fa Assane Sambo journaliste analyste politique nee na ni mu def ba régler mbiri Karim Wade ba mu mën a bokk ci élection régler mbiri Khalifa Ababacar ba mu mën a bokk ci élection na def ci lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko te nag bu fexee ba ñi xam ne ñoo war bokk ñëpp ci élection yi bokk ci élection yi ñi xam ne ñooy détenu politique yi ñu daal leen bi moom loolee maanaam mooy waxtaana yéen kaay gi di réew mi quotidien nee ñi nga xam ne ñuy waa plateforme F24 ñoom nag nee nañu jamono ji xeex bi nga xam ne sumboon nañu ko duñu ko bàyyee naam Macky Sall nee na du candidat waaye nag bëri na loo xam ne maanaam des na ndax Ousmane Sonko mi nga xam ne dañu ko bëgg a gàllankoor loolee teguwul fenn te waa F24 ñoom nee nañu maanaam loolee mënuñu ko nangoo ndax nee nañu Macky Sall su ma nee bàyyi Khalifa Sall muy bokk ci élection bàyyi Karim Wade muy bokk ci élection war naa mën a bàyyi Ousmane Sonko muy bokk ci élection ba pare ñi nga xam ne ñooy ni politique yi ñu daal leen di libéré loolee muy bëgg-bëggu F24 yéen kaay gi de Le Quotidien ñu xëy fekk fa député Cheikh Thioro Mbacké nee na ambade sall ak li gudd gàtt ay élection moom kenn du ko amal ci réew mi te Ousmane Sonko bokku ca yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na Karim ak Macky ak ñi nga xam ne ñooy waa Qatar lan la ñuy wàcc bi di Walf Fadjri moo xëy di ko xibaar ndax nee na en tout cas li ambade sall na leen leer ne Macky Sall ak Karim Wade gisante woon nañ ca Qatar ca di Walf Fadjri nee na en tout cas li am ba des sall mooy Karim Wade doomu Abdoulaye Wade bi dafa bëgg Macky Sall daal di koy xàllal yoon en tout cas négociation nee nañu ma ngi am diggante Macky Sall ak Karim Wade waaye nag lépp waa Qatar ñoo ngi sa biir maanaam Qatar la ñuy def caution bi te nag ñi nga xam ne ñuy waa Qatar maanaam dàquñu sax ne xaalis bu baree bari ngir convaincre ki nga xam ne mooy Macky sal ngir nag moo mën a xàllal yoon Karim Wade Karim Wade jamono ji ma ngi waajal élection présidentielle 2024 ndax journal bi nee na Karim bi mu jugee ca ajug màkk gi demul nga xam ne mooy Qatar dafa jaar Paris maanaam fa ak réseau yi nga xam ne ñoo nekk France am na nag ñu bari ñoo xam ne ñoo ngi doon wax ne Amadou Ba waaye nag soo muy tuulee surprise générale dina am ci mbir ndax Karim Wade ak Macky ak ñi nga xam ne ñooy waa Qatar gaa ci waxtaan wi yéen kaay gii de la point ñu xëy fekk fa Abdoulaye Sy mi nga xam ne mooy daas bu ministère bi ñu dénk wàllum justice nee na Macky Sall ak dogal bi nga xam ne jël na ko bañ a bokk ci élection républicain la te nag Macky Sall nitu jàmm la la ci Afrique exemple la ci classe politique bi kaddu yu Abdoulaye Sylla yéen a kaay gi de la témoin xëy duñu xibaar naan ñu démb ca conseil des ministres ba Macky Sall soriantowul ak ku doon tàggatoo ak gouvernement bi yéen a kaay la Tribune nee munta ñàkk Macky Sall def remaniement yéen a kaay gi de Vox Populi Barthélémy Dias moom tamit yëkkate na ay kaddo jamono ji ma ngi loxo ñi nga xam ne ñooy yi nga xam ne moom la ñu dëgmale te nag ñooñu nañu nangu dogalu yàlla te Barthélémy Dias nee ñoom du ñu jàppale koo xam ne dafa bëgg a taal réew mi te Sénégal ku ci bëgg a jot maanaam ci ay urne lay doon yéene kaay gii di la sa xëy duñu xibaar naan ñu dogal bi nga xam ne moo tukkee ci atteb Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye maanaam affiché nañ ko ca tribunal ba mbata koy affiché ay résultat journal bi nag nee na ginnaaw bi ñu ko affiché fi nga xam ne mooy ca tribunalum Dakar maanaam décision bi dogal bi danañu ko daal di affiché maanaam danañu ko daal di taf ca buntu kër Ousmane Sonko bu ñu dem ca mairie bu Ziguinchor daal di koy taf ca buntu mairie ba yéenekaay gi de L'As nee na lu jëm ci wàllum jàpp Ousmane Sonko mbir maa ngi gën di leera mbir maa ngi gën di jege yéenekaay gi de L'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu réunion bi nga xam ne waa APR ak Macky Sall démb doon nañu ko amala def nañu réunion boo xam ne juróomi waxtu la am na lu toll ci fanweer ak juróom ñoo xam ne maanaam ñoo wax Macky Sall nag nee na dinaa leen gunge ba ngeen gañee yéenekaay gi de L'Info ñu xëy fekk fa professeur Moussa Diaw nee na Ousmane Sonko ak Idrissa Seck comme yàlla ak yàlla yi Moussa Diaw nee na Idrissa nekkul koo xam génn ku constant la maanaam Idrissa Seck ay mbiram dara leeru ci te nag def ay mbir ci suufa Idrissa Seck lu mu mane la maanaam defal ma lii ma defal la laa ay compromission loolee Idrissa Seck daf ciy yëngul loolee moo tax askanu Sénégal bàyyi Idrissa Seck bu dee nag Ousmane Sonko maanaam ku ci ay waxam discours la boo ne bu clair la waaye bu radical la réew mi ko fii journal bi nee na démb doon dañu ko garda wi yéen kay gi di libération nee na Birame Souleye doucement bu ñu lekkee ci mooma bu ñu naanee ci mooma ndax la nga xam ne moo xewoon ca Côte d'Ivoire ak ñi xam ne ñoom la Alassane Dramane Ouattara tànnoona loolee mën naa am Sénégal maanaam Birame Souleye Diop journal bi nee na li mu a wax dal mooy en tout cas ñi Macky Sall tànn ku ci mel ne Amadou Ba wala Aly Ngouille Ndiaye nañu def ndànk ndax mën na leen a posone ba pare bokk ci élection yi kaddu yooyu nag Birahim Seck bu Forum bu baax a baax yéene na ko Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen Stress